yàlla rek a xam lu ñëwagul xanaa ñeen ñenn ci yónnante yi mu koy xamal hmm. te ñooñu du ñooy nekk ci internet bii di wax naan ay Sénégal nangam mag nangam ak nangam nañu wattu njabar bu metti jii hmm. kii nekk fi naan neex yàlla mu am naqar yàlla dina am. Mm-hmm. loolu à cirque la. Karamba woo Maradia Sow Cheikh ñëpp ku ne Sénégal mën nga ci am ko bi da ngay fen mm-hmm. boo duggoon ci YouTube wala internet nga tapé Sénégal ay njabar lañ lay njëkk andil mm-hmm. ku tag ay béjjën fee ku def fee ku def lee lu ñaaw ñaaw. am na ñaar ñoo xam ne. dama leen di wax naan des fois sax. nga mere leen ci seen communication. mais des fois nga xaw leen a naaw ci seen communication. ndax réew mi dafa dem ba boo tuddee nit boo tuddee nit ku baax ñu daggal ko aw saaga tegal ko fa. boo dëgg boo tuddee yàlla ñu daggal ko aw saaga wala ñu wax ko wax ju ñaaw teg ko fa. Mm-hmm. da da ngay toog ba benn instant ngay jàngat naan pays bii ci la ndax pays bii la Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké nekkoon. Mm-hmm. ndax pays bii la euh, maam El Hadj Malick Sy nekkoon. Mm-hmm. jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ci jàkkaarloo waat ak yéen ni ñu ko doon waxee rek di encourager suñu joueurs yi dem nañ uti waaye demir tawuñ ah, tey nag ñu ñëw seeti koo xamante ni daanaka muy kilifa ci dëkk bi. di sëriñ Xaadim Mbàkke Tanzil bu ñu nee sëriñ Xaadim Mbàkke ñëpp gën koo xam ci keppaaru sëriñ Touba ndax bu ñu nee sëriñ Basiru moom sëriñ Touba waaye nag bu ñu nee sëriñ Baara moom sëriñ Touba mm. kon nag fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu xam-xam ak lu jëm ci wàllu match bi ndax la ko gisee sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo di nuyu di leen ziar yéen waa People 221 di nuyu mboolem sénégalais yëpp di nuyu waa réew mi ak bitim réew di jiital sunu nuyoo sunu sëriñ sunu lépp ki nga xam ne yàlla moo ko jiital ci ñun di Cheikh Mouhamadal Mountakha Mbacké hafisahullah wara di ñaan yàlla wattu ko te kattanal ko ba li mu am yéene liggéeyal ko maamam jam mu liggéeyal ko comme ni nga ko bëggee guy gi jërëjëf ñu sëñ bi fi may nuyoo fi may njëkkee Euh, naka nga jàngatee match su démb bi. waaw guy gi <laughs> match démb bi moom mën naa la ñun ñëpp am nañ ci jàngat bi ci njëkk day day dugg ci wàllu séer yi deuxième bi day dugg ci wàllu course bi. li nga xam ne nag jàngat bi nga xam ne nag am nañ ko ci séer yi mooy li leen waroon mën naa la wax ne la def nañ ko ba mu mat sëkk xanaa di leen de dolli remercier di ñaan yàlla euh, baneen yoon mu gën a neex bi ñu weesu ñu wees fii te itam di wax coach bi nag di Aliou Cissé nay gën a diglu Sénégalais ndax kat 17 millions de personnes ñu nekk ci bennum réew yow benn personne lañ ci tànn jiital la kon euh, war nga di mën a diglu yeneen set millions yi ci des yëpp ndax kat wax dëgg yàlla am nañ yéene te lu baax dongu lañ lu baax dongu lañ lay wax te loolu lañ lay digal waaw tey ñaan yàlla yàlla kat na leen ndax kat am nañ ci ñoom yaakaar lool ndax jeunesse bi it bëgg nañ leen lool réew mi heure bu gañee da xam ne kat ñii nii ku leen doon fay ay milliards mënoo tax ñu def lii wala seen xol seddee nii te loolu équipe nationale doo nga leen ko mën a def loo kon foofu laneen la mm-hmm. waaw mm-hmm. am na solo torop am na solo torop mm-hmm. ma ñëw ci nag cëppaandaw li parce que gis nañ match yi sëriñ sépp jug taxaw ni Sénégal day door 3 un ñii naan nañ watu ay ndel ñii naan nañ génne ay pom yow euh, ban jàngat nga am ci loolu nga xam ni ñooñ dañu leen tuddee ay sëriñ ñu génn di wax guy gi bu ma sañoon ñooñu da ngeen di bàyyi tuddee sëriñ tuddee leen comédien ndax ñooñu maanaam ñii see théâtre ñoo ëpp valeur sax ci man. ci bët nit si bët ñoo ëpp valeur ñoo leen ëpp valeur ci bëtu sénégalais yi. Mm-hmm. gis nga damay jox ndaw ñi référence. nañu roy ci ku mel ne Abdoulaye Diop Khass nañu roy ku mel ne Sidi Muxtaar Silla ñooñu ma ne wax amul kenn koo xam ne xam naa ko ci mas nañoo gisante mais ñii ni ay référence lañ ci wàllu xam-xam bii ndax alquran dafa wax ne wa innahu mafatihul bu laa yahlamuha illa huwa yàlla rek am xaybu yàlla rek a xam lu ñëwagut xanaa ñenn ñenn ci yónnante yi mu koy xamal hmm. te ñooñu du ñooy nekk ci internet bii di wax naan ay Sénégal nangam ak nangam hmm. gis nga dinaa leen fàttali waxit leen nañu mot wattu njabar gu metti gii ñu nekke hmm. nañu wattu njabar gu metti gii kii nekk fi naan neex yàlla mu am naqar yàlla dina am loolu a cirque te itam euh, bépp bépp bàkkaar boo xam ne du sirk bokkaale mm-hmm. bàkkaaru euh, bàkkaaru siiru njabar moo la féete kaw mm-hmm. nañu wattu loolu mm-hmm. tey nañu xam ne yàlla rek a xam lu ñëwagut sëriñ si lii ñuy def lenn ci sëriñ sii di comédien nañ ko bàyyi gis nañ fi ku ñu xaw ma ku ñu wax Karamba la. Karamba borom jinne yi taxawoon ne Sénégal day dóor. waaw gis nga ko. Mhm. xam nga li ma li li tax ma ne yàlla kenn la. Mhm. mu yàlla da leen a seetaan ñuy ñëw ñoom ñëpp di ñëw di ñëw ba defu group mhm. yàlla ànd la weer noo leen ñoom ñëpp. ndeysaan image su Sénégal da ngay wax sax naan njabarkat yi bokkuñ ci. Mm-hmm. lan moo tax ma ne njabarkat yi bokkuñ ci image Sénégal boo duggoon ci YouTube wala internet nga tàppe Sénégal ay njabar lañ lay njëkk a bil mm-hmm. ku takk ay béjjën fee ku def fee ku def lee lu ñaaw a ñaaw. Mm-hmm. da da ngay toog ba benn instant ngay jàngat naan pays bii fi la ndax pays bii la Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké nekkoon. ndax pays bii la euh, maam El Hadj Malick Sy nekkoon. tey bii la maam Omar Fuuti yu Taal nekkoon sa yaram day mujj daw léegi wallaahi naa si ñun ñun ñun ñun sonn nañ mhm. te te euh, lii ñuy wax assiru muy njabar mhm. réew moo xam ne delloowu la ginnaaw mhm. wallahi lancé mi du la amancé loo ngir yàlla ko yónanteem nañu jaamu yàlla tey ñaan yàlla suñu soxla tey bàyyi njabarkat yi ñu topp gis nga lu jëm ci wàllu bind xaatim ak lu jëm ci wàllu euh, ñaan yàlla di jëfandikoo ay alxuraan ak ismullahi al asam bokkul ak njabar te itam nit ñi dañoo dem ba dañoo mujj gëm ne ñii nga xam ne ñooy njabarkat yi ñoo mën a faj aajo hmm. guy gi ndax xam nga ne njabarkat yi yëpp génn naa dem naa benn ak dem naa Mali la ñu tiitaroo waaw ndax benn mas naa jël euh, coupe du monde ndax benn qualifié na coupe du monde ñoo dàq fitis ñii ñëpp te deful fenn waaw kon fitis hmm. hmm. yoo xam ne sax bu ko neexee mën na leen yónni bii ci coupe du loolu lépp amut du dëgg Mm-hmm. man maa taxaw di viyee ko ne du dëgg mm-hmm. bu doon dëgg la gàcce gi gàcce goo xam ne dix set millions personnes ñëpp a nangu ne da am gàcce loolu lu ko yées te moom otoom dañ te moom otoom ci bundu gërëm lañ ko fekk yàqu <laughs> xam naa jinne yi xam naa jinne yi boobu dañoo reer <laughs> am na ñaar ñoo xam ne mm-hmm. dama leen di wax naan des fois sax nga mere leen ci seeni communication mais des fois nga xaw leen a naaw ci seen communication muy ku mel ne Adamo. Mhm. ak Cheikh Cissé. waaw surtout Adamo. Adamo gis naa rôle bi bi mu amee. Mhm. suyee na ci rôle bu am solo. Mhm. wóor na leen ñoom ñëpp ne ku ci ne la nga waxoon foo ko teg. foo ko ah, très bien ñëpp dañuy laayam laayam kenn waxul dara lu leer. ñoom ñëpp gis naa it wax joo xam ne wax na leen ko def na seeni photo def ay def ay émission def ay eh, directeur wax leen wax joo xam ne ju ñaaw la. man naa ne la ñu yéenewuma ko kenn mais ñoom ñëpp ñoo ko teg seen bopp. ku mel ne Cheikh Cissé. Mm-hmm. damay di de euh, ànduma ak moom ci yenn waxam yi waaye yenn waxam yi da nga ciy ànd ak moom. Mm-hmm. ndax dama ko déglu mu wax ne Karambawoo Marañasoo Cheikh Cissé ñëpp ku ne Sénégal mën nga ci am ko bi da ngay fen. Mm-hmm. wallahi wax boobu moo am. am na ci ndaw soo xam ne sax waxoon na nañ génne ay ay pom. <laughs> kooku nag li ma neex ci fédération Sénégal bi mooy ren dañoo gàccal dañoo gàccal sëriñ su bari. ndax sëriñ su ma wax ne sarax nangam ak nangam am naa ko. duñ ko génnee ji de dañ la ko indi tegal la ko. Mhm, nga xam ne defet bu amee yow sax defet la nga fa nga jaaree ba ilaa mi diir. Mhm. nañu bàyyi jékki-jékki gis benn personne. Mhm. ne kii nii kat xam na euh, jàngut xamut dara ñu ne ko sëriñ dafa dox demal nga doon sëriñ. mu ñëw tegle ay béjjënam lal ay xar nga xuufaam jékki-jékki ne ab sëriñ la. non guy gi guy gi senegal métti na. billaahi wallaahi laasiim yi damaa yërëm ñii. suñuy maam dañoo ñëw liggéey bay bëgg a dee. ndaw yi ñëw bëgg koo yàq. am naa lu ma metti lool image senegal dafa ñaaw. surtout sëriñ léegi. sëriñ si dañuy ñëw di def jëf joo xam ne dara rafetu mhm. nga dem assemblée ñuy ñëw taxaw di def ay xeex ay wéqante. Mhm. maanaam Sénégal ci boppam dara image bu rafet laa fi gisatu. Mhm. image bi dara dara dara rafetu ci. am naa lu ma metti lool lool ci réew mi nga xam ne ci lañu nekk. lii nag doy na waar man nag bu ma amoon li xam ne moo ma gënal. président bii day woote. ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ mm-hmm. ñu dëj leen ne leen bu leen wax waxu fitis laay def xam mm-hmm. am naa jinne mm-hmm. ndax yaakaar naa defoon nañ benn émission boo xam ne ci jinne lañ doon waxtaan muy mbirum jinne da dul mbirum dara dafa nekk loo xam ne lu yomb la waaye nekkul dara loo xam ne lu baax la ndax ñii taxaw naan am naa jinne comme karamba jinne yee leen yilif te ñii nii barki Cheikhul Khadim amuñ ko. yàlla laay seedeel lii may wax. parce que maa maa ngi dégg sax ñu bari naan dañuy dem ñu leen di wax loo te li nga wax sànq dafa am solo mooy ñoom ay Mali la ñuy ndamoo ak ay Côte d'Ivoire te gën kenn mësu see génn premier tour génn xam nga affaire yi. li ci hmm. gën a métti mooy. bopp séeru Sénégal yi. Hmm. ñoom dañuy dem ba traumatiser ko ba. ñoom Sénégal yi dañuy jàpp bo séeru yi jàpp ne dañuy gagné match bi te ci mystique lay tege. Hmm. fekk na ñii dañuy fenn xamuñ dara. léegi rek image boobu des ci xelu séeréer yi ba jàpp ne ñoom ak lu mën a xew buñ ko teg ci football nañ ko teg ci musique dañ ko war a gagné te loolu lépp mhm. séeréer yi naa la wax ne lenn ci maaraay ñoo leen convaincre côté boobu dafa ma metti lool mhm. dafa ma metti kon gis nga ni Adamo démb ni mu taxawee ànd nga ci ak moom wax dëgg yàlla yokku mhm. ma ci ànd ak moom ndax dina tax ku ci ne ëllëg ci biir booy waxati ci wàllu max yi ci da nga xam bu baax a baax li nga xam ne moom la moom ngay wax man mii max yi ñëw na ba jeex defuma benn sorti gis naa ñi nga xam ne ñoom laay toppi di xool seen i sorte mm-hmm. gisuma ñu def benn yi wax ci wàllu marché yi mm-hmm. gis naa ci ku mel ne Abdoulaye Diop Xaas tiimal nañ ay micro waaye à chaque fois moom Cheikh Bakhar Ndiaye du ci nangoo wax li ñu mm-hmm. wax mooy yàlla na yàlla may ndam par exemple gis naa ku mel ne Sine Mokhtar gis mu def ci sorte ñooñu nag ay référence lañ ci booy yi di doog a jub nañ xool ci ñooñu te ñu bàyyi xel ne yàlla rek moo am xëy bu boo xam ne lu mu bëgg xam yàlla lu mu bëgg a xam xam ko. Mhm. lu mu mbëgg mu am mu am. Mhm. mais ñi ci des ñëpp dañuy sabablu dañuy ñaan. Mhm. te gis nga jinne doomu aadama ko gën a foor. doomu aadama buy taxaw di ndamoo jinne kooku gàcce weesu ko. gàcce weesuwu ko te bu njëkk Sénégal boo nee man ab sëriñ laa. dañ lay ragal. dañ lay ragal jox la cër. respecté la. waaye jamono jii boo nee man ab sëriñ laa saagaw nday lañ lay njëkk a ragal. <laughs> <laughs> dëgg la de guy gi fan la réew jëm. dëgg la gis nga réew yëpp ñu ngi jël seeni kilifa diine. Mhm. di leen làq di leen teg foo xam ne fu kawe la mais senegal léegi dem nañ ba njabarkat yi ñoo yàq ba kenn xamatul lu baax ak lu bon la war a def. Mhm. kuñ tudd jàpp nga ne kii ku bon la daggal nga ko aw saaga. Mhm. moom daal. doy na waar doy na waar ma ñëw ci fi nga xamante ni nag mooy wàllu seet tey jii est-ce que tey comme ñu ni Sénégal day fubali suba mën nga koo seetal ba xam senegal day gañe wal du ga guy nga seet. ba xam Sénégal day gañe am du gañe nga laaj. man nga seet gis ne Sénégal day gagné nga dem ba ca suuru match ba Sénégal du gagné. Mm-hmm. yàlla rek moo man moo man moo xam loo xam ne ñëwgut. Mm-hmm. gis nga euh, mbirum yàlla. Mm-hmm. du loo xam ne lu ñu partagé la. dama dégg ci benn damay topp sëñ mbay ma dégg ko ci benn benn euh, conférence muy wax ba ne. am na benn walliwu yàlla boo xam ne nit mas na koo gane si. ñëw ne ko dama ëmb dama bëgg ñu ñaanal ma doom ji doon góor mu teg loxoom ci biiram ne ko doom ji bu dana juddu dana doon góor mu judd doon jigéen mm-hmm. ba mu juddoo doon jigéen biñ ko laa bi mu ñëwaatee ci wëliwu yàlla bi ko dane ko bi ma ciy teg sama loxo di ñaan góor laa gis mm-hmm. te bi mu juddoo jigéen la yàlla yàlla rek a fi ne moom rek moo xam loo xam ne lu ñëwagul loolu la ma bëgg a xamal mm-hmm. gis nga fii nii man ngaa seet am ci am ci kii nii am ci ay sarax yu la woon ne la lii kat boo ko defee amaane boo ñaanee yàlla yàlla mën na laa may. Mhm. mais nekkul ne ala kulli xaalin la nga gis mooy am. d'accord tey fi may fi may fi may fi may fi may jeexalee waxtaanu tey wi nag xam naa ni dina jaaxal ñu bari parce tey dañ nga wan leen ni euh, sëriñ laa dëgg la waaye tamit damaa bokk ci sénégalais yi citoyen laa damay participer ci li nga xamante ni sénégalais dañ koy naqarlu mais nekkul ni nit ki chaque jour da war a toog rek wàllu seet wàllu nopp des fois tamit day baax nga ñëw participer en tant que comme ni nga koy defee ndax gis nañu ni lépp loo xam ne day génn buñ laalee Sonko nga jug buñ laalee keneen ak keneen nga jug loolu seen taqwa laamu di ragalu yàlla. guy gi foofu lañ jëm. Hmm. ndax réew mi dafa dem ba boo tuddee nit boo tuddee nit ku baax ñu daggal ko aw saaga dagal ko fa. boo dëggee boo tuddee nitu yàlla ñu daggal ko aw saaga wala ñu wax ko wax ju ñaaw teg ko fa lan moo ko waral mooy ñii nii nga xam ne ay féticheurs yi lañ ay fétiche fétichkat lañ maanaam nga xam ne xamuñ dara ay nit ñu dem ba perte lañ hmm. amuñ luñ luñu lu ñu def lu mooy di wër nekk ci site internet di wax wax joo xam ne ju baaxul ju baaxul la hmm. dem nañ bay xàmmeetuñ nit ku baax ak nit ku bon xam xàmmeetuñ nit ku baax ak nit ku bon leneen ci sëriñ si dañuy nekk di comédien nekk fi maanaam comme kuy siyee théâtre mhm. comme ay théâtre kat ñoo nekk ci fii maanaam da ngay dem ba sax yow da ngay yéemu mhm. wallaahi naa si Sénégal doom si sëriñ gàcce wiisu ko mhm. moom guy gi <laughs> d'accord d'accord d'accord fi may jeexalee mu di Ousmane Sonko ñu yëpp gis ni suba tamit dafa war a wuy ji jàkkaarloog nga xam ne ñooy justice naka nga gisee jàngatu demu Ousmane Sonko suba. waaw nañ ko ñaanal jàmm ak salaam rek ndax gàccaal ko lañu lañu bëgg jàkkaarloo ma ak Adji mais Ousmane Sonko suñuy bët du ci mas am gàcca. Mm-hmm. ndax lépp loo xam ne man nañ ko danañ ko defal ci ñaan. Mm-hmm. ñaan yàlla nag lañ koy defal. te itam am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ne yàlla dina ko teg ko mhm. ñun dañoo am yaakaar ci moom. Mhm. dañoo am yaakaar ci Ousmane Sonko. Mhm. te man bis bu Ousmane sonkoo jëlee réew mi du ma bett. am naa ci yaakaar lool mu ñàkk a jël réew mi nag moo may bett. waaye nag nañu xam ne euh, crédibilité Ousmane Sonko yàlla def na ko ci moom ba pare. te ala kulli xaalin ay waxi Adji Sarr Adji Sarr toog fee daa gasante moom mhm. mënu koo yàq ci suñuy bët ndax mhm. dañuy avant dañoo xam ne lii ay pexe la ba pare mhm. bu doonte xamuñ ne ay pexe la sax mën na nekk mais dañoo xam ne ay pexe la ñu ngi koy ñaan nag suba na na dem ci jàmm ñëw ci jàmm waaw loolu lañ koy ñaanal dem ci jàmm ñëw ci jàmm teyit jàmm moo fay mujj salaam lay àndal buy ñëw bu soobee suñu borom jërëjëf jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu vraiment moo nekkoon suñu invité tey Euh, mu doon waxtaan bu am solo aussi tamit waxtaan boo xam ne sénégalais yëpp tamit doon nañ ko xaar ci moom euh, tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay ñaanal sénégalais yi. waa di sant ak di gërëm di wax sénégalais yëpp nañu xool bu baax a baax li ñu def ak fi ñu dugal seen alal ak it nañu bàyyi xel bu baax a baax ci naxekat yi. Mhm. ndax man dama comprendre am réew moo xam ne da ngay gis nit mu nax la. Mhm. nga gis nit mu wax wax joo xam ne xam nga ne lii dara du ja mais bu subaa moom ngay jox sa xaalis. Mhm. loolu moom moom laa ñàkk comprendre ci sénégalais yi bañ nañ ko sax ba kenn kenn day jug fii nee na naa wax lu du dëgg ñu vaar ma ñëpp xam ma ndax ñu yow may jox seen xaalis mhm. sénégal daal dañuy am faible siiw mhm. loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullaa di ñaan yàlla guddal aw fan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan yàlla wattu ko di ñaan yàlla sàmm ñu taar ñu wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people